di jaale famille yi nga xamante ne nii ñëpp ñàkk nañ seen bakkan yal leen yàlla xare àjjana yal na leen yàlla xare àjjana e, yàlla may xolu muñ seeni i ak seeni i famille e, yàlla may ndam aussi réew mi ba léegi buñ ci jógee ñëpp xoolaat taxawaay bi taxawaayu opposition taxawaayu société civile taxawaayu état taxawaayu ñi ñuy fal taxawaayu taxawaayu parce que nag dafa am principe boo xamante ni dafa am nit ñi dañ ko dul comprendre dafa am loo xam ne yàlla moo ko rétablir ci société yàlla dafa ne walaw laa dafu llaahi annaasa baadahum bi baadin la fasadatil ardu kon bu kenn tiitaroo jàpp na ne li nga nekk président wala nga nekk ministre wala nga nekk président loo mënti doon wala nga di ko jiite ci yow la c'est le principe de l'organisation sociale yalla mo ne suma su ma tek ci kaw ñii souf day yàqu donc société bu nek tu trouveras les moyens effectivement de gérer ton cadre de vie donc soko comprendre rek di nga ne donc amul leneen lu ci nek lu wara tax nga je ne pouvais pas m'empêcher de me prononcer parce que sur beaucoup de questions dama ci am sama xalat diko wax diko bokk ak euh, nit ñi la gendarmerie l'armée ils ont pour première mission de préserver la libre circulation des biens et des personnes par n'importe quel moyen mais également vous problème am à travers ces événements on a vu des militaires on a vu des policiers des gendarmes di yëkkati ay la ça témoigne de beaucoup de choses c'est une matière à réflexion nous ne pouvons pas a Des gens, nous aussi Nous sommes des di nous sommes des di nous sommes des maltraités maltraiter aussi du maltraité. mu une confrontation entre deux citoyens sénégalais et pourtant les lignes, ñuy la police mais cela va en direction des ordres Quoi je suis contre l'usage des armes des balles balles réelles Utilisées pour assurer la sécurité de ton peuple moom ci amee il faut que nous xoolaat ko quoi peuple du maate boppam peuple du maté boppam à l'endroit de cette jeunesse aussi nous comprenons également demain ce pays leur reviendra on attend beaucoup d'eux parmi eux il y aura des présidents des docteurs des enseignants des économistes des sociologues des infirmiers toutes les causes sociales ci jeunesse bi lañ koy des imams des marabouts des califs <laughs> oui des califs parce que notre succession bi kenn mënu ko arrêter. yalla ko def la ummatun la succession des générations Je suñu borom la ko bañ dana am ku ko bëgg dana am on doit se préparer vers cette succession là donc cette jeunesse là qu'elle soit consciente de sa responsabilité. Qu'elle soit également en phase, qu'on ne se laisse pas emporter par la colère, qu'on ne se laisse pas également emporter par la fougue. Nous devons avoir de la retenue et mesurer exactement C'est pourquoi on élève la voix. lan moo tax ñu jóg di yëkkati suñu kaddu lan moo ñu a di avec le régime sur place loolu nag jàpp naa ne ne bokkul ak dara ay forme d'agression et attaque de biens personnels Le moment de faire war naa mun parce que notre dafay mel ni ne am na lu ci rax donc voilà en fait euh, euh ce que je voudrais dire et di Goulou, vraiment euh, di jégalu sénégalais yi un citoyen sénégalais la rek bu am gis-gisam am yëg-yëgam am naqaram bu jàpp na xëy na kàddoom bu jógee dana am lu mu def ci ñenn ñi ba partagé ko ak ñoom di jeexale rek di ñaan le président de la république na wax ak askanam na wax ak askanam waaw loolu moom bu koy digal lu war parce que la ko jaraloon mu wër Sénégal gépp wax ak ñoom laaj war na a jaral tey fi réew mi mu jàkkaarloo askanam du ko doon eh, mais di wax eh, sénégalais yi également ci ñun le peuple sénégalais que chaque fois qu'il sera question nous élire ku donc au-delà des discours au-delà des discours hein je pense que ni ñu gën a gëstuwaat sur vraiment les motivations réelles que ñu xam réellement dëgg-dëgg ah nit ñi teg suñu kanam mooy lan je pense que loolu daal laa amoon lu may wax hmm? wa axiru dahwaana alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum